di nuyu bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne def nañ jotaay bi muy seen jotaayu wéttal def ko muy seen jotaayu naafila ak lu mu teel teel di ñaan borom bi subxanahu wa taala mu boole ñu nangul ñoo ngi leen di béggee bu baax a baax a baax di ko ñaan mu yokk jàmm ci réew mi def ko ci àdduna si yépp soppe baax yi ñu baaxoo nuyu tey jël nuyoo yi di ko teg ci seeni loxo gëj ja tudd seeni tur. waaye ñi ngi ànd ak ñun saa su nekk di wéttalante ak ñun lu mu teel-teel bu jotaay bi jeexee ñu jot seen ay message diirub bis bi itam ñuy yendoo jot seen ay njàngat ci waxtaan yi ak yi nga xam ne moom ngeen ciy yokk ak di wéttalante ak ñun loolu nekk ab soññee yal na yàlla fay leen di beral ab nuyoo suñu jigéen docteur Anna ja ak mboolem soxna yi nga xam ne ñooy bàyyi xel jotaay bi jël nuyoo bi teg ko ci loxoom démb ñoo ngi doon fàttalante ndax <coughs> ndax événement yi nga xam ne moom lañu ñu tollooloon bis yu doy waar yi nga xam ne ci lañu nekkoon xew-xew yu rëy yi nga xam ne moo fi xew te yàgg xew te mooy wàccu liggéeyu kilifa yi nga xam ne ñoo fi jaaroon loolu nekkoon ak fàttali ci ñun ndax suñu boroom subhaanahu wa taala bi muy wax ci téere bi naan fàttali leen daa am baat bum ca teg mooy fàttali dina jariñ ñi nga xam ne dañoo gëm kon ki nga xam ne daa gëm moom buñ ko fàttalee rek mu jariñ ko yàlla nañ bokk ci ñi gëm naka noonu itam buñ ko waaree mu waaru te ab jullit day nanguñu waar ko maanaam doon koo xamante ne yow waaraate mënulaa jàpp fiiru waaraate moom guñ teg ci sa kanam nga raxal ko jàll bokkut ci jikko yi dal xel li gën a doon tànneef te gën a doon lu gën a dal xel mooy koo xam ne buñ ko fàttalee mu fàttaliku buñ tuddee ci moom yàlla mu tiit tiit gi du tiituk sampu xelam daw sori yàlla waaye tiit gi mooy mu bàyyi ko xel ndax kàttan gi nga xam ne moom la am ak dayo bi nga xam ne moom la am moom borom bi subhaanahu wa taala ci digganteem ak jaam ñi loolu sax moo tax dafa am ay teggin yoo xamante ne jaam bi da ko war a am ci kanam boroomam da ko war a am ci kanam boroomam subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir borom bi subhaanahu wa taala dara nuróowut ak moom dara dara nuróowut ak moom ci dara waaye kenn wala lenn tolloowut ak moom ci ab lenn ci ab dayo ci ay sañ-sañ ci kàttan ci man-man ak ci nim koy defee ci ak xereñ ndax yooyu yëpp bi mu dajee muy kàttan geek sañ-sañ beek man-man geek yëpp daa am ak coobarewu nag goo xamante ne bu koy def da koy defee noonu ay yëfam waaye itam nag amu xereñ goo xamante ne noonu la koy xereñee ba du ko def mukk mu nekk njuumte du ne mukk diwa faatu diwa waroon a faatu dañoo jum diw faatu loolu nit a koy wax waaye yàlla moom nekkul ci programme boobu ku war a dem rek yaay dem te ci xereñ la ko teg naka noonu ki war a am juddu day juddu ñi war a faatu dañuy faatu am ñu war a tawat dañuy tawat am ñu war a ñàkk dañuy ñàkk am ñu war a am dañuy am borom bi subhaanahu wa taala noonu la mooñe àdduna yor boppam yoral boppam bàttub seddale ko di ko séddalee nu mu ko neexee len lu ne nit day gëm ne lu am la te bu dee ak ker la faaw dana am ñu ca muy am dafay nekk faaw am ñoo xam ne dañuy am borom bee ko dogale noonu ak ñàkk day lu nekk faaw am ñoo xam ne dañuy ñàkk borom bee ko dogale noonu ak man dafe nekk faaw day am ñoo xam ne dañoo man borom bee ko noonu ak tële dafee nekk faaw am ñoo xam ne dañuy tële tawat dafe nekk wér dafee nekk waaye naka noonu itam dee itam dafa xew dafa nekk laa bëgg a wax ci pénc mi nekk ci loxol borom bi subxanahu wa taala faaw moom itam ku sab app jot nga def ko waaye loolu da koo def nag ci sañ-sañ di ko def ci kàttan di ko def ci man-man. kooku nag jalla jalaaluhu wa azza kamaalu jaam bi daa am comportement ak teggiin yoo xamante ne moom la war a ànde ak moom waaw daa am daa am teggiin yoo xam ne moom la jaam bi di ànde ak boroomam subhaanahu wa taala kenn du yàlla ma wax la ko tey kenn du moom kenn nit du am dayo yëkkatiku ba diir yàlla mbagg wala mu bokk ak moom fotoyam ba déedéet moom kay lu nit baax baax baax baax baax may yàlla yee rëy nag waaye dégg ko may sax lañ ko tudde mayam yaa rëy lu ne maye na ko nag sutantee nañ ñu ne nit ñi rawantee nañ ñu ne ëpp leente nañ ñu ne ci magasin yi borom bi subhaanahu wa taala waaye nag téewul moom mooy yàlla ñun ñu des di dooni jaam loolu faaw ñu nangu ko ne yàlla mooy yàlla ñun ñu des di dooni jaam moo tax bu julli jotee luñ la fonk fonk fonk nga toog ca kaw nga ne ñokket wax ñi la doon fonk ka kopp koppal ne leen sama patron nag heure bi ma soxla woon jot na te maag yéen a ko bokk jóg leen ñu jóg ngay sëgg ko si gidi su jóot ba sëlmal ne leen mi ngoog daal di dellu si waat doonub jaam kooku mooy yàlla kenn nuruwu ko ci dara kenn nuruwu ko ci dara nee na sax lu ma neex laay def waaw lu ma neex laay def xam nga moo ma neex ma def ko yàlla dong dong dong dong lu jig te moo koy defee noonu nga xam ne lu ma neex laay def faalun li ma yurid waaw nekkuma fi di tàggoo wala may diisoo kenn du moom nag nuróowut ak kenn ci dara borom bi subhaanahu wa taala lahul asmaul xusna wa sifaatul ula ay tur yu rafet la am ak ay melokaan yu yëkkatiku moom suñ borom subhaanahu wa taala arrahmaanu ala al arshi istawa lahu ma fi lsamawati wa ma fi l ardi wa ma baynahuma wa ma taxta shara wa in tajhar bilxawli fa innahu yahlamu sirra wa axfa allahu la ilaha illa huwa lahul asmaahul xusna subhaanahu wa taala kooku mooy yàlla arrahman waaw seet mooy ku bari yërmande ki nga xamante ne ci yërmandeem la ñuy dox di ko tooñ fétteerlu ci pénc mi mu bàyyi ñu ñuy nooyi dem ak a ñëw yërmandeem temps wu néggandikoom boobu nga xam ne moom la may jaam bi di ko tàllal nag di ko yàkkawli naan ko tuubal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal bul yaakaar ne mukk baax wala boo ñëwatee dootuma la dalal maa ngi pare pour recevoir la waaw maa ngi pare pour nga baax ñëw bokk arrahman borom boobu moom mooy ki nga xam ne li ci asamaan lépp moo ko moom li ci suuf lépp moo ko moom foofu la am am mën a yem danga naan sama nangam sama oto bi ba mu yàgg oto bi ne rës yàqu nga ne yàllaa ko dogal wala ñu ne yàllaa la ko joxoon kat moo ko jëlaat sant ko sama doom ji ba bis doom ji ñëw lay dale dal ko ñu ne yàllaa la ko joxoon yàllaa la ko jël kon moom moo ko yow ci sa bopp noonu waaw bi nit ki faatoo mu metti nit ñi ba ñuy jooy dañ naan yàllaa ko dogal waaye moom mi ko dogal kat moom la ñuy wëlbatikuwaat ne nañ ko sant nañ ko sant ci dogal bi mu dogal kon yàllaa moom lépp noonu la xamee li nëbbu noonu la xamee li feeñ yàlla li ngay déeyanteeg nit ne ko kaay ma déey la ndax bëgguma nit ñi dégg ko ñun ñaar fa la ñuy daje ba wax li ñu war a wax parce que loolu moom vraiment dafa war doon waxtaanu secret yéen a xool fa ngeen di daje ca pàkk ba nga xamante ne amul ñeenti koñ dara ku fa yéen ñaar dong la ngeen ni cundum toog di wax yàlla nee na man xam naa li ngeen di wax maa ngi koy dégg allahu akbar bi nga ne nit ki lool kay moom du lu ñuy audio waaw du lu ñuy wax ci téléphone ñëwal yàlla nee na téléphone bi moom am na ñoo xam ne boo ci waxul duñ ci dégg waaye man moom foo waxee maa koy dégg waaw boo ko bindee message xam naa ko boo ko kàllee nga xamante ne li ngay wax ak li nga wax bokkut moom mi koy dégg nag day xam li nga bëgg a wax yàlla nee na xam naa ko yaxlamu sirra wa axfa kooku mooy borom bi subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo xam lépp buñ lay laaj ku xam lépp neel mooy yàlla axaata bi kulli cheyin ilma wa qaharal wa qahara kulla maxluqaat mooy ki nga xam ne yaalamu maa bayna aydihim wa maa xalfahum wala yuxiituuna bihi ilma mooy borom bi nga xamante ne moo xam lépp li ñëw ak li ñëwagut li xew ak li xewagut lépp suñ borom xam na ko mooy ki nga xamante ne xam-xam mënu koo peeg mënu koo peeg boroom boobu nag subhaanahu wa taala dafa am ay teggin yoo xamante ne moom la jaam bi di am ci moom dafa ay teggin yoo xam ne moom la jaam bi di am ci moom ba ci njëkk mooy gëm ko day gëm yàlla gëm ko gëm gëm palaasam mooy xool waaye aw làmmiñ da koy tudd ay cër di ko jëf bu ko defee mu nekk gëm doone gëm yàlla moom mbirum xol la rek bu ñu waxee nga naan gëmoo yàlla te gëm yàlla ci xol lay nekk waaw bi nit ki gëmee yàlla ci xolam da koy tudd ci làmmiñam waaye da koy jëf ci ay ciram ay acte yi muy def da koy wone day wone ni kii gëm na yàlla wóolu na yàlla doyloo na yàlla subhaanahu wa taala moo tax euh, gëm gi muy gëm ne yàlla moo yàlla ak tudd gi koy tudd ci làmmiñam ci ne ana laa ilaha illa laa ilaha xayruhu wala sabia lahu wala nasira lahu wala walada wala walid wala saaxiba wala sharika la loolu bi ni mu ko gëmee noonu tudd ko ci làmmiñam noonu da koy fase ci ab xolam ba du jëf ñu yëg ne daa wutal yàlla ndend mel na yàlla dafa am ay assoin yàlla dafa am kuñ koy nuróole waaleel yàlla dafa am yaay wala dafa am baay wala dafa ami doom wala yàlla dafa am jabar maanaam du ko bokkaale dara laa bëgg wax ci ci xeeti bokkaale yi xeeti bokkaale yi nga xam ne am na nuñ ko tënkee du ci bokkaaleeg boroomam subhaanahu wa taala ci dara ci lu jege ak lu sori loolu mooy gëm gi nga xamante ne mooy moom la ñuy wax tawxid te mooy wéetal borom bi subhaanahu wa taala ak yi nga xam ne moom la àndal yépp wala yuxiituuna bi cheyin ngeen baal ma wala yuxiituuna bi cheyin min ilmihi illa bi ma chaa وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يخده حفظهما وهو العلي العظيم kooku mooy borom bi subhanahu wa taala beneen ñaareelu teggin bi nga xam ne nit ki la koy am digganteem ak boromam mooy mu gëm boromam ci xeetu gëmiinu ni nga xam ne noonu la ñu ko alquran melale ak ni ñu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam melale waaw maanaam borom bi subhanahu wa taala daf ñoo waxal boppam moom ni mu mel dafa am noo xamante ne noonu nga koy gëmee maanaam doo doo gëm ne ku tële la wala ku lott la wala euh, koo xamante ne ku fi jóge la wala koo xam ne ku sosu la wala dafa am euh, pàcc bu yaatu bu mu àndal boo xamante ne jullit bi borom Laxdari sax moom la doon tuddee tasxeexu imaanihi maanaam mu defaraat ak ngëmam mu defaraat ak ngëm yàllaam day toll foo xamante ne dafa war a defaraat ak ngëm yàllaam ni mu koy defaree mooy dafa dafa dafa wax ne ab jullit la gëm naa borom bi subxanahu wa taala waaye kan mooy yàlla ndax yow bi nga ko gëmee buñ la waxee turam yi xam nga tur yi lan la buñ la waxee meloom yi ndax xam nga meloom yi lan la léegi bu fekkee yow turi yi waxuñ la turi borom bi subxanahu wa taala ba nga xam ko jàngoo meloom yi ba nga xam ko waxuñu la kan mooy yàlla dëgg-dëgg ba nga xam ko mu ànd ak xam booy dugg ci bokkaale noo ko yëgee ndax mënoo jël loo xamante ne yëllut ci jëmmam ji nga askanale ko wala loo xamante ne nii manqué la ci moom nga nga jëlee ko ci moom wala loo xamante ne nii jomb na ko ba noppi nga di ko askanale loolu ñàkk xam mën na ko woon di moo tax waxtaane ak xam borom bi subhaanahu wa taala ak wéetal ko dana dimbali nit ci mu am fit ci mu am fit parce que ku parce que ku xam yàlla ku ne da ngay ñeme da ngay am fit ndax dalay doy kilifa te da koo mat te da ko mat moo tax tomb boobu dama ciy jaar jaar bu gaaw waaye daa bokk ci teggin yi mooy nag gëm ko bi ma wasafa bihi nafsuhu fii kitaabihi ni nga xamante ne noonu la melale boppam ci alquranul karim nga di ko dégg wala yuxituuna bi cheyin min ilmihi nga di ko dégg laysa ka mislihi cheyun nga di ko dégg wax naa la ko léegi mu ma bayna aydihim wa ma xalfahum yaalamu sirra wa axfa melokaan yooyu nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko melale boppam wax ne nii laa mel nga gëme ko noonu mu ko waxee ba noppi jàppe ko noonu loolu Euh, ci xeeti teggin yi nga xam ne jaam bi da koy am digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala ci la bokk yàlla dañoo war a am ci moom ay teggin léeg-léeg jamono ji nit ki ne yàlla kay li muy def la kenn xamul mooy lan diir yàlla kay moom jaaxal na ma diir waay subhaanahu wa taala beneen bi ci topp nag mooy dëggal dëggal gi nga xam ne moom la jaam bi di dëggal xibaar yi nga xam ne moom la ko borom bi subhaanahu wa taala jox yim wax ne dana am yim wax ne dana am ci àllaaxira yi mu wax ne bind na ko muy aljanna dikko ñi nga xamante ne ñoo ragal yàlla lim wax ne bind na ko muy sawara dikko ñi nga xam ne dañoo weddi ta woon ginnaaw borom bi subxanahu wa taala ak i ak i téeréem ak yonent bi yooyu nit ki da koy gëm maanaam day gëm yi borom bi wax ne subxanahu wa taala am na ko bind na ko ay jaam lañ ne ñun waaye ñi ngi xaar jaam ñi ëllëg yowmal xiyaam moom kon day gëm bi kulli ma axbara bihi subxanahu fi kitaabihi al aziz aw ala lisaani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam an asma'ihi wa sifatihi wa an al wa annahu subhanahu wa taala xad xalaqa fa ahadaha daarul xuluud lil muttaqin borom bi bind na aljanna waajale ko ñi nga xamante ne nii ñoo ko ragal bind na sawara waajale ko ñi nga xamante ne nii ñoo ko weddi loolu ci jàmm bi di gëm lay doon am ci ay teggin digganteem ak boromam subhanahu wa taala beneen bi ci topp nag mooy sellal gi nga xam ne moom la jaam bi di sellal jaamu boroomam subhaanahu wa taala ci bañ koo bokkaale ak dara bañ a bokkaale yàlla ci dara dara dara dara laa sharika lahu fi ibadatihi wala niddan wala naziran waaw bu am solo ngi noonu te mooy li ñuy wax sellal sellal maanaam nit ki buy juuf bu boobaa yàllaay tax bu boobaa buy wax yàllaay tax lu muy def lu ne yàllaa tax mu di ko def mu sellal digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala nga xamante ne gën gaa ñàkki teggin ci kanam borom bi subhaanahu wa taala mooy bokkaale ko boole kook dara boole koog dara loolu mooy li gën a ñàkki teggin wa xadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu la wax waaw li ma dogal moom borom bi subhaanahu wa taala ci ñun nee na mooy li ma leen sant mooy ngeen jaamu ma bañ maa boole kenn mooy ngeen def ma may seen kilifa yàlla nee na nañ ko def muy kilifa suul adab bi ci gën a rëy mooy ashirku billah mooy bokkaale borom bi subhanahu wa taala ñàkki teggin gi jaam bi di gën a ñàkki teggin ci kanam boromam subhanahu wa taala mooy wutal yàlla wujju waaw wutal yàlla wujju wala ndend wala kopee koo xamante ne ni jàpp nga ne mooy dogalal yàlla ci yëf yi loolu mooy ñàkki teggin gi jaam bi di am digganteem mag boromam bi ci gën a rëy nee na nag li ma bind nit ak ginne dara taxut lu dul ñu déggal ma mooy ñu bañ maa bokkaale rek

te bëgg ngeen taxaw ci mooy ngeen jaamu ma ngeen déggal ma ngeen bañ ma bokkaale kenn binduma nit ak jinne dara tax lu dul ñu jaamu ma li ma leen digal du dara lu dul ngeen jaamu ma te sellal jaamu gi te sori ak bokkaale waaw bu leen ma wutal ay ndend nee na yonent yi jiitu woon yonent bu ma mas a yónni lenn laa la sant mooy na ngeen ma jaamu te bu leen ma bokkaale waaw na ngeen ma jaamu te moytu xërëm yi moytu bokkaale yi moytu lépp lu man di doon loolu lu mat lu mat a lu mat a fàttaliku la ndax euh, fi jamono di toll am na yooyu buñ jàppee ne yàgg nañ koo dégg day tax ñu sori kiiraay yi waaw day tax ñu sori kiiraay yi borom bi subhaanahu wa taala yi nga xam ne moom la sëmbërtal ci suñ kanam te yooyu jege ko daa bokk ci yi nga xam ne dafa gën ci ñun beneen bi ci topp nag mooy toroxlu ak wommatul borom bi subhaanahu wa taala ci tagal ko waaye ci xemmeem ko waaye ci topp ko innahum yuskaanu innahum kaanu sama jumut yusaaricuuna fi lxayraati wa yadcuunanaa ragaban wa rahaba wa kaanu lanaa xaashiin loolu borom bi wax nee jaam jaam ñu nga xamante ne da leen a gërëm te tagg leen mooy ñi nga xam ne dañoo nekkoon di njëkkante aw yiw di njëkkante lu baax bu ñu déglu rajo ba dégg ñu ne ku def ñaan sàngam te dana mane dana mayee tiyaaba ñu jël seen big bind foo leen fekk ñu nekk dina nabi lépp lu dégg ne lu baax la kenn du leen ci man yu saariuuna yu saariuuna waaw ñu ngay njëkkante ñu ngay njëkkante bàyyi wuñ de ñu ngay njëkkante lépp luñ dégg ne lu baax la muy alxayraat xayraat mooy aw yiw aw yiw du julli dong du woor dong waxut yu saariuuna fi salaat wala fi zakat waaye yu saariuuna fil xayraat maanaam ña ngay njëkkante aw yiw aw yiw mooy ak mbaax moy am ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala nga xam ne tey bu doon tey ab commerçant la ma ngay xool concurrent am nan laay def ba am lii nan laay def ba am lii ci fànn gi ci wet gi itam ci wàllu wii mi ngi njëkkante aw yiw digganteem ma borom subhaanahu wa taala foo ko fekk rek def lu baax lay lay lay lay xënte woo nangam dañ koy cotiser moom li muy yàkkamti mooy bu ko manee financé gaaw gaaw def ko ndax loolu gaaw sotti ndax ma ndax ma am ci yiw noddu nañ ma ngay gaaw dem ci jàkka ja ndax gaaw am ci yiw war naa joxe dara ma ngay gaaw dimbulee maanaam yu saari oona fil xayraat di ñaan boroomam subhaanahu wa taala loolu mooy toroxlul borom bi subhaanahu wa taala waaye mooy déggal ko mooy déggal ko di ko ñaan di tiit di tiit waaye ba noppi di am yaakaar waaw yàlla dañ koy ragal xam nga waaye mooy ko xam ne dañ koy ragal ba noppi daw làqut ci moom kon du ragalu moytu mu gis la ci safaan bi lay doon jàm bi day toll foo xam ne day rus a def bàkkaar ndax day rus bëti borom bi subhaanahu wa taala tegu ci kawam moom lay rus moo tax foo ko fekk day yuuru doo xam day yuur ne cell ndax yëg borom bi subhaanahu wa taala ni ne dajj ci kawam jomb naa mu gis ma may def loo xamante ne nii da koo bëggut ndax lim ma defal yàlla bi ma def man ma doonu mbët wala ma doonu bar wala kaña mu def ma ma nekk nit teraanga yim ma defal yëpp jomb naa mu gis ma may am yenn comportement yi loolu mooy maqaama ci ci jaam boo xamante ni jaam ñi dañ ciy rawante moo tax ma ne la léegi may borom bi subhaanahu wa taala fo ëppante te dafa bari te dafa bari seytaane nag mooy ñëw di yàqal nit ñi innama dalikum shaytaanu yuxawwifu awliyaahu loolu borom bi wax seytaane moom daf ñuy tiidloo moo ñuy ragal loo ñàkk boo joxee da ngay ñàkk moo lay yabloo yàlla ba nga def ko moroom seytaane dafa baaxut moo tax borom bi ne bu leen ko ragal fala taxaafuuhum wa xaafuuni in kuntum muminin seytaane bu leen ko ragal mooy tey nit dana bëgg a def dara waaye li ko ci nit ñi wax lay xalaat nangam de su ma ko defee nit ñi danañ ma coow tax mu bàyyi ko waaye sóoraale ne bi mu koy bàyyi bàyyi gi daa naqari yàlla nga xam ne li muy def boo moytuwut yàlla taxul mu di ko def bu koy bàyyi yàlla taxul mu di ko bàyyi waaye li muy def lépp nit ñee tax muy def nit ñee tax muy bàyyi bokkaale mënta weesu lool di a ah, barab sàngam ne mu ëpp naa dem ndax nit ñi moom boo fa demee ñun la nangam nangam te mën naa am dem gi nekkoon ak jaamu yàlla ci yow waaye bi nga koy bàyyi ngir daw coowul nit ñi moo tax nga bàyyi ko diw de bëggoon naa koo defal nangam waaye soo ko defalee nangam nit ñi wax ne nangam nangam nga xam ne yow daw tagg wi la nit ñi di tagg moo tax far nga daw sax maanaam def jëf ji boo bokkaale dafa sew dafa nekk